استاذ محترم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاج بابكر دلو نيويورك زيار دلو جف استاذ اي واتش يوبلو بس بي واو حاج بابكر يوبل بي تي نك دا فاي نييو تي نيت يو خامني سوكو نبي من نا لا فاجال نيت يوغا خامنتيني بي دا فا نبوتو تي ياو bu njëkk bi haaj babacar mooy feebar bu dal nit ki te feebar bi moom munu koo wax kenn ndax diggante mag boromam la xam ko waaye munu ko nettali kenn loolu soo bëggee mu teggeeku sarax boo nëbb moo ca aay sa boo xam ne sa digganteeg sa borom kese la dox njàqare gi nekk ci sa xol te munoo koo wax kenn astaxfirullaa kese boo def sa digganteeg sa borom te kenn dégg ko moo ci aay bi ci des mooy stress bi la bi nekk ci sa xol bu la arrivé mooy xalaq bu la arrivé li ci aay dëgg-dëgg mooy jullil sa borom ñaari rakka la kenn dul gise ku dul sa borom haj Babacar ñett yi nëbbatu na mais moo mën a faj yeneen ñett yi nga xamante ni bi yow yi nëbb na ci sa biir xaaj ba